Serigne Ousmane li mu muñ Sénégal tax na mu ne ñu su ma leen waxee benn denc naa dund su dee dafa am lu baax ak lu bon kenn waru ci jiitu Serigne ndax Serigne moo mën a def laa différence entre lu baax ak lu bon budget bi ñu am même pas un milliard mënoo ci defar terrain te man wax naa ne décentralisation doon na gën a am solo su dee yooyu dañ ko jëloon tey jox ko élu tey Kër Massar ba mu teg war na am tey lu mu bon sax département bi war na am benn salle de spectacle bu nit parce que il est inconcevable que département bu doon ni Kër Massar ñu dem ba Pikine wala Mbao di ko politique alal du ko def mbooloo ko boo jëloon ci budget bi tey defar tali ñu accusé d' objectif fu mu toll nii Kër Massar ba mu bi amuñu hôpital. bu nga teg sa coup pour arrêter. violence verbale moo gën a garaaw sax violence physique mais benn bopp yaakaar yàlla. lu jeex tàkk kay loolu nu ma koy wuti. parce que ñoom xam nañ ne su ma ki bokkulee c'est terminé pour dem. donc une affaire qui se passe entre députés. yow nga jàpp ñi bàyyi ki ci des. non ñun am nañ candidat. kan mooy seen candidat monsieur Moustapha c'est notre candidat. c'est le candidat du PUR. parce que moom boo ko gisee mu génn gàmmu la. wala conférence wala farataam mu génn wax ak ñi mu war a waxal. bu dee yeneen yi mooy wàllu stade bi. ñun am nañ projet boobu mais daf ci am yoo xam ne ay partenaires ñoo ñu mën a. ñu nekk yi à part ay PDC yooyu ñu ñoo leen fi def. waaw leader yoo xam ne dañuy wax ba mu neex leen ñu tari aaya. loolu lan la.